maa ngi leen di nuyu sëriñ Sayxu Mbàkke mi nga xam ne moo toog ci jotaay bi teewal fi sëriñ Abdullahi Mbàkke yàlla boo di kilifa ak jotaay bi ñu di ko siyaar di ko jox wàcc waayam ak sëriñ Sayxu naa mi yor kàddoom te war a wax ca kanam incha allah waaye ci turu commission culturelle bi nga xam ne dafa bootu ci biir daairatu al intisaam bi xablillahi bi nga xam ne moo tënk mboolem njaboot ak borom saam gi bëgg rekk tënk wala def portrait bu gàtt ci borom bis bi boroom jotaay bi di Cheikh Ahmadou Diarra bu ñu koy taarif taarif bu gàtt dañu xam ne rek doomi soxna jaara la ak sëñ Mor Anta Sali bokk sëriñ Tuubaa ñaari waajur yépp te féete kook mag di jëmm joo xam ne li yàlla soxla ca jaamam lépp daje woon na ci moom jaamu yàlla woon bu ko ma sëkk ab jaam doon xalifa bi yàlla ci kaw suuf bu ko ma sëkk ab xalifa doon dundal suuf si te na ko yàlla digle sàmm la ko digga ma boroomam matal ko sëkk la ko digga mag bindeef yi matal ko sëkk la ko digga mag boppam it matal ko sëkk diggama rakkam jii di seexul xadim itam ñu bokk lépp suñ borom mi leen boole ñaari waaju ne la boole seen lépp muy leen na ñu nekk ay misaal di ay référence ci ñépp ci moo xam la leen boole ci la ba boole ci xaraaba muy ci ak bokk ak ci irada muy ak taalibe ga leen boole ndax gannaaw bu mu ko magee ba nag jox ko boppam def ko muy kilifaam alayhim ridwaan war rahma seen alaaxa nekkoon nekkoon relation boo xam relation bokk la waaye relation itam iraada la iradiya mu ko sëriñam def ko imaamam ànd lam koy mag mag tañ lépp xam-xam rek dana doy moo ci sotoon ñëpp kon dana ko doy mu yam ca su ragal yàlla rek dana doy bokk na ña ci jiitu mu doy ca su doon jikko ju rafet rek mu doy ko waaye dafa dajale yépp ndax dadaa wax ne sëñ Bamba day xar baax waaye yaafu suma sëñ ba day xar baax waaye yaafu suma lool baata boo xam tënk na lu bari daa wax it ne fahaalun limaa yurid ji suñ suñ borom wax ci alxuraan ci sëñ sëñ la la laa ko gën a déggee mooy li suñ borom ne suñ borom mooy def lu ko soob lu ko soob lay def kon daa jëfandikoo coobaram ci sëñ Tuubaa waaye bu dee xam-xam bu dee ragal yàlla bu dee jaamu ko bu dee sell doy na ci sëkkaro yu ci ñëpp te moom ak sëriñ bi jàngal na ko yéen ci te teew mu teg lépp fee jaayante ak moom sëñ Tuubaa it daa yabal ci moom lu bari ci taalibe yi comme ci defar ba noppi ci yow yabale ko nga liggéey ko ba mu gërëm ba mu gërëm la door a takk nag garaat bi nga xam ci ci ma nga war a takk nga day mel ni moo moo daan signé bu Sëñ Tuubaa defaree ba noppi jox ko man mu mottali mu desee Sëñ Tuubaa ko gërëm ñu bari jàll na leen foo ko mel Cheikh Ibrahima Fall ko mel ñeneen ak ñeneen ñeneen ci yi nga xam ne sëriñ sëpp dañoo nekk lu sax nekk fa moom boo sëñ Tuubaa nekk waajuram moom sëñ Mor Anta Sali waaye sëñ Mor Jaara nekk ci nijaayu sëriñ Bousso bi eh, nekk naawel waaye génnoon na dëkk bu génn naaw leen defar di sàkko xam-xam ci ci boroom xam-xam yi nekkoon foofu ci Saloum waaye sëñ Tuubaa daana jug léeg-léeg bàyyi ko Poroxaan dem ci sëñ Mor am fa weer wala ñaari weer doo delluwaat wax ne weer yi mu fa daan am daraan daraan daraan wéerlu ci moom xam-xamam loolu sëñ Basiir wax ci minal baaxil xadim ne ax beneen ni baax siqaat kenn ci ñi doyuloo nettam kam ci jullu mooy sëñ Afi Ñang mi bokk si amul faatil soxna wursu axbari ni baadu siqaat anna cheikhan mutarajjim lahu axbarahu an rawxahu balaxa la tajidanna waqta wafaati muallimihi almadkur summa raja'a ila walidihi wa tahdi nafsi hatta hafida wa sahha wa jawwada min al musahihin id daaka kullu dhalika bi xutbi walidihi wala yaxibu anhu illa qalila li anna axaahu shaqiqa muhammada jaara kaana inda ba'di al musahihin xaarija xariyatihim rubama yati yamkusu minhu shahran aw shahrin suma yarji'u wa kaanu id daaka fi salum ayaamul mujahid mujahidin booba sëñ Basiru daa wax ne kenn ci ñu wér nett ne ma kam ci jublu mooy sëñ Yaafi ñag ma bi tudd léegi neen sëñ Tuubaa nettil na la ko boppam ne ko bi sama sëñ daar di faatu muy tafsir mbàkki nu ma ko doon jàngal maa ngi la taj daan asdana mi ngi topp la mi ngi topp na bi tafsir mbàkki nu bi di faatoo ci dellu na ci waajur si ma sëli am farlu boppam ba wattu alxuraan wéeral ko rafetal ko ci ñi ko doon topp booba kenn ku nekk mi ngi ci wetu waajuram moom sëñ Tuubaa Moustapha du Moustapha jóge lu may lu néew ndax neen boobu magam ju Seex Mahmudu Jaara mi ngi ci woon ci jenn daara fi génn seen dëkk léeg sëñ Tuubaa dana ko dikkal am fa weer wala ñaari weer delluwaat te mooy mag ci Saalum waxtu wa nga xam ne mooy xarit ma booba dañ daan dem lante ka dikkalante léeg-léeg suñu tubaab ñëw Mbàkke seer léeg-léeg mu dem daal sam seer gis ma suñ Mor Jaara boo suñ tubaab boo ci wetu nijaayam Sëriñ Bousso bi Sëriñ Tuubaa it li ëppoon ci mbiri këram ñoom ñaar la ko féetal Sëriñ Bousso bi ak Sëriñ Mor Jaara ndax wala daan dugg ay xalawaat xal yoo da cee yàgg lool loo ci wàllu njaboot ko biir kër gi nag mu dénk ko Sëriñ Mor Jaara Sëriñ bi waaw Cheikh Maodo Moustapha ab taawam sëñ Mor Jaara ko tudd kañ toog Cheikh Maodo Fadil sëñ Bousso bee ko tudd kon mooy dëgëral ni kon mbiri biir këram lépp ñoom ñaar la ko bàyyi woon bi ñu sañcee Touba it boobu di continuer seen diggante ñoom ñaar borom saam di ko siyaar ji lu bare bare bare bari ba ci ngay dégg xissa bi nga xam ne sëñ Xabibu Mbàkke imaam da ko nettali ne da koo jëlee ku ñu wax sëriñ Balla may te sëriñ Balla Mbay daa fekkee jotaay ba bi Tuubaa di metti dëgg dëgg dëgg nga xam ne booba taal bi fa nekk sëriñ Tuubaa boole woon nañ ñeent daawuñ lekk daawuñ naan daawuñ nelaw daawuñ noppalu saa wuñ masaan xëy kenn ku nekk benn nga bu pepp la tibb jox la bési mbaa saaño nga yëy soo yëyee ba nag ñu xel kubéeru sàtt la ci ndox jox la nga naan kubéeru sàtt la bala nga koo amaat waxtu waxtu des waat ci suba si te doyante dem tool di bay di gor di taxan di root ndax boobu tubaab mun dara ci dox ngaa bu la ñu roote ci dañ ko yem dañu dox wax ne boobu si tubaab daa leen wax ndox maa ngi fi doy sëkk waaye dama koy bañ a teel a génn ñu fi wata dëkk di fi dëkk di ko yàq suñu yendoo liggéey ba jant so suñ ji ba noppi ñee tàmbali sikar ñee jàng xasaayit ci ku ci ne ci ñu door a suñ tëddee gam-gam sëriñ bi fekk leen fa ne leen jug leen liggéey àdduna nelaw xaju fi man seet laan waxoon na ne suñ xamee nelaw yi guddi gannaaw sëriñ Tuubaa la bi loolu amee ci metti yooyu nag sëriñ Mor Jaara bañ yokkat mu ñëw fa ne bu ñu sëmali takkusaan soxla naa ñëpp bañ sëmali ñépp daje mooy li ma leen doyee mooy bëgg leen yee tuuti daa bëgg ngeen xam ne Serigne Touba mii nu àndal dajale wu leen fi nopp ba noppi doon di wuti lu mu leen añale ëllëg lam leen nar a añale ëllëg da koo liggéey ba téye ko ca doon leen daju kon da ngeen yokk seen pas-pas sa gën a góorgóorlu nga xam ne kon mettit wa bañ nañu yokkat tax mu soññal ca noonu kon yàgg na ko jàppale kon te booba murid yi li ñuy wàññi ak baaraam la ba mooy ci Touba ji njëkk ji rek te booba Serigne Touba ni boobu Serigne Touba mi ngi ci xalwa waaye moo dajal taali yi jaar ñoom foofu kon mooy kon nekkoon na ci wetam bi nekk di ko dëgëral di ko jàppale seen allah ko bi Sëñ Tuubaa nekkee Mbàkke Baari nga xam ne génn na Tuubaa war dem nag dajeeg nattu bi ngir séent nag borom ba nag subhaanahu wa taala bi nekkee Mbàkke Baari ñuy bindante leetar am na ci leetar boo xam ne duma wax araab yi ndax bañ ba gudd dafa wax ne rek bismillah rahmaan rahim mi ngi bàyyi koo ci ki bind xaraf yi jëm ci yow yow sàq yow ki ma bokkal ndey ak baay Cheikh Mamadou Diarra ak sama nijaay Cheikh Ibrahima si Mbàkke Kajoor wa Ibrahima Saxiir maam Cerno ak lim daal ñu bari damay bañ bañ a guddal eh, mooy la ma leen li ma leen doy rek mooy eh, bañ ngeen ngeen am benn sikki sàkka wala naqar ci man ci luy niru ñàkk teggin wala ñàkk yitte wala li ni dogu bokk li ngeen ma gëj dégg lépp rek na ngeen xam dama nekk ci xal def ma ko ngir sama mbirum bopp ci sama bakkan it damaa nekk ci xalwa saa buñ ma génnee dina génn kon yàllaa ko dugal xalwa kon saa buñ ma génnee dinaa génn kon dugalu ci boppam famata uxraj axruj wasalaamaaleykum leetar bu Mbàkke baat la ko bindee kon la muy tekki mu nekkee Tuuba mu nekkee eh, fam fa yoon yu sosoo muy muy muy muy muy muy ca Mbàkke ba mu wootee wax la ko yàlla digal ba ñuy jëbal-jëbal ci la yónni si ko ne ko na lu fi xew sa lu xew nangam nangam su ma jaar ne ko loo nekk moom mu fekk si ko Mbàkke mu di ko jàppale Daaru Salaam di ko jàppale ca Saalum noona Touba noonu Mbàkke bari na ba nekkee jigéen yi tamit lettre bu nekk bind nañ ko jotaay bi ko may wut waaye daal xam ne kon rek seen àllaqa yàlla ma leen boole lam leen mboole moom rek ko xam waaye la ca fees nag firndeel na ne seen lépp lenn la yàlla ko suñu boo fayal kon ñi ngi tënk foofu di jéglu ndax day mm, buñ gisee waxtaan bi ñàkk nosu ki dafa dañ ko waajalut waaye ñaan yàlla suñu boole dimbale wala defal tawfiq xiir nu ci ñu tasaxal nu ci te def na dëgg dëgg taalibe Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nangu na suñu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di jël suñu kàddu nag ci ndigalal Serigne naa bi nga xam ne moom moo ñu dénkoon organisation màggal gi pour ñu saytu ko suñ diggante ak administration bi. bi ñu tàmbalee njëkk nañoo def CRD bi ànd koog waa CRD bi ci teewaayu gouverneur de la région. ba ñu demee it ñu jëloon fa ay engagement ci biir engagement yi tamit sécurité ci la bokk ñu doon ñoo xam ne wax dëgg yàlla am seen taxawaay rafet na ci màggal gi euh, muy waa polis seen taxawaay rafet na ci njiital commissaire Diédhiou ci lépp loo xam ne jëloon nañ ko ci ay engagement def nañ ko ni ki waa sapeur pompier ak waa gendarmerie ñoom chef de service yëpp di sant tamit waa santé ci seen taxawaay ci bis bi lépp loo xam ne waxoon nañ ko ci seeni engagement jël nañ ko waa UGC sax lañu waroon a njëkk a sant ndax ñoom it seen taxawaay ak seen ab liggéey ci set setal bi nga xam ne doon lañ ko def ci kër gi ak li wër Mbàkke xewar lépp loo xam ne jëloon nañ ko fi ci ay engagement def nañ ko ba def lu kawe suñu njort di sant waa SDE ñoom it ndax màggal gi dafa bëri ñoo xam ne dañuy jóge ci kilifa yi dañuy jógee Touba di jóge Cham di ñëw ak waa Misira am fi ay kër ah, ñu taxaw leen jàppale leen ci njiital tabara mi nga xam ne mooy chef de sens bi ba lépp loo xam ne jëloon na ko ci CRD ci ay engagement def na ko di santit waa élevage di santit eaux et forêts ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci màggal gi di santit waa service commerce di santit képp koo xam ne rek bokk nga ci CDD bi ak CRD bi nga xam ne lépp loo xam ne day ay engagement la yu ñu jëloon ci màggal gi def nañ ko ñi ngi santit ñi nga xam ne jàppale nañ comité d'organisation bi ñu ko mel ni le directeur général ba ci taxawaayam ci bis bi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm lépp loo xam ne waxoon na ko def na ko ba ci bâche bi nga xam ne moo fi nekk moom moo ko fi def kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaan yàlla yokk ko li mu bëgg yàlla defal ko ko di santit madame Mbaye ci taxawaayam ci màggal gi di santit sëñ Ablaye Balde préfet daal ñi nga xam ne yàlla leen yilif ci administration bi engagement yi ñu jëloon yëpp na nga leeral gouverneur ne def nañ ko sëñ bi nag bala ñoo jeexal danañ sant gouverneur de la région bu Diourbel muy Amdi Moustapha Ndaw ci taxawaayam ci këri diine yi ndax bi ko yàlla joxee région bi kat taxawu na mbooleem kër yi ba lépp loo xam ne lu ñu war a am la taxaw na bañ am ko nañ ko bëggee kon bu yàlla defee mu nekk fi def fi liggéey bu am solo ba war a dem danañ la ko leeral la ca toppit am nañ loo xam ne tamit ab rëq-rëqal bu am muy suñu diggante ak hydraulique ndax màggal gi dafa tàng te ñoom dañoo jëloon ay engagement waxoon ko te dafa mel ni daaw defoon nañ ren ñu defaat kon loolu it day nuru leneen ndox comme ni ñu ko waxee dafa am ñoo xam ne dëkkuñu fi dañu bàyyi ko Misra ñu jóge Saam ñu jóge Touba ñëw fi am fi seen i kër buñ ñëwee buñ ko ubbee la ñu jëkk soxla mooy ndox te ñoom waxoon nañ ne dinañ ñëw lépp lu leen war ci màggal gi ñu def ko waaye lañ waxoon daal dem moom defu si dara loolu moom dañ la ko wax nga dégg ko ndax moom it dafa jëloon ay engagement ci CRD ba la mu waxoon it na ko waxee woon defewu ko noonu kon maa ngi jéggalu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. moo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu xaq di leen bal di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba mu mottali naal yi mu naan yépp yéene ko liggéeyal lislaam liggéeyal ko maamam Cheikhul Xadim di ziara borom att bi sëriñ Abdoulahi Mbakke yàllaay buur xalifatu maam borom Cham ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko ci kanam njaboot gi te yàggal njaboot gi ci ginnaawam di nuyu mboolem njaboot gi yëpp ñoo ngi leen di ziara bu baax kenn ku ci nekk ñu di la jox sa wàccuwaay di nuyu sëriñ Cheikh moom Cheikh Latif mi nga xam ne moo fi teewal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu di ko ñaanal yàlla. suñu borom dëgëral ko kàttanal ko ba liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéeyal sëriñ bi mu defe ko ni mu ko bëggee yëpp barke Xaadim Rasuul euh, kàddu yi noo ngi nuyu njabootu maam borom Cham gi yëpp li ñu ci indi ci jëmm ju baax ji nga xam ne moom lañuy ñuy defal bis bii di maam borom Cham di koo xam ne dafay yell waxtu wu nekk ñu di ko nafar ak dundam ak di ko waxtaanee ngir taxawaay bu am solo bi mu taxaw ak jëf yu rëy yi nga xam ne jëf na ko jëfal ko sëriñ bi te jëfal ko taalibe yi ndax da leen caa wutu doy na rek ngëneel sëriñ Touba mi nga xam ne lu way am ca moom mooy la ngay sagoo di ko sant yàlla boo ca amoon mbubbu danga koy denc ca gaal yi gën a ya nga gën a fonk di ca def laj koloñ ngir ne mbubb mi mbubbum sëriñ bee garab gu mu jaar wéeru ca baa mu julli ca noonu lañ koy warmaale wa waggar ko ngir jaar ga mu fa jaar lu ca waay am boo dee taalibi ci moom it taalibe ga moom ngay sagoo di ca sant yàlla ci dox gi mu dox sa diggante ak sëriñ bi boo ca dee mbokkit loola da ca yëg ngir tawféexi yàlla la ci mu boole ak sëriñ bi maam borom Cham nag am ca cër yu rëy yu ko kenn fekkul ba ci jëkk mooy bokk ak sëriñ bi lépp nga xam ne soxna jaaratullahi ma Mariama Bousso mu baax mi nga xam ne doy na ngëneel a tedd nga mu bokk kook Cheikhul Khadim waaye bokk ak moom it euh, sëriñ Mor Anta kon doyoon na ci ngëneel bokk gi mu bokk ak sëriñ bi yaari way jur yu sell yu tedd yooyu nga xam ne euh, doy nañ ci misaal ci jamono bu dee sëriñ Mor Anta Sali mi seen way jur doy na ngëneel ci nekk gim nekk géeju xam-xam waaye nekk gim nekk it naanuwaay te loola ba sëñ ku ñuy wax sëriñ ma markan ba muy tagg sëriñ Tuubaa ci waxtu raw andi woon na loola waxoon ne innal xuruuna bila thunya azimmatihim fi raaxatayka liyanqaadu maa qaadu hada la ahmada bamba kaana walidahu bahrul ulumi namiril ma i mawluda kon wone position boobu bu dee soxna su sell si bokkit noonu nga xam ne euh, ku ne xam ne tolluwaayam ak taxawaayam yi jëfam juró yi waaye borom saam it doon ngëneel ndax yàlla jox la jagle waxtu fan yee dama am ku may gëstu ci moom ma ne ma ne ma ne ko muy may waxtaan ci téeméeri rakka yi maam borom saam di mu ne ma mas nañ ko koo laaj moom borom Cham mu ne man ni ni ni sëñ tubaa di royee yonent bi ñooñam noonu la ñuy royee yonent bi ndax yonent bi alayhi salaatu salaam daana taxaw di naafile ay tànkam di newi buñ ko laajee lu tax dana afala akun abdan shakura borom Saam it biñ ko laajee waaw naafile gi ak taxawaay bi ak mag gi ak coono yi dana dama ci sant yàlla ci jaarale gim jaarale Serigne Touba ci noonu nga xam ne day sant yàlla ci am gin am Serigne Touba te xam ne kon delloo yàlla njukkal gi ci jaamu ko ci wéetal ko ci lu mën a doon waaye cantu boppam la ngir diggante moom muy ku bari jagle ci sëriñ bi ndax doy na ca sëriñ Tuubaa moo waxoon ne lu ko waay defal rek man nga ko defal ndax lu ko waay defal maa ko ko waroon na defal kon nag ci am payu defal gi nga ko defal borom saam am ci payu def gi ma ko defal te sëñ bi moom boo ko jëfalee kon pay googu nga ciy am ak payu yàlla payu yonent bi waaye boo ci jëfalee borom saam nag da cay dollikuwaat payu boppam mu nekk ñeenti pay ngeen jëfal ko googu mu koy jëfal waaye bu ñuy wax li ñuy wax gëm yàlla gëmu dogal am tawxiid kenn du ci jot borom cham ndax sëriñ Touba nga féete ko mag ba noppi jàngal nga ko bokk ak moom lépp mu woote nga wuy jël sa bopp jox ko loolu day mel ni ba histoire boo dee gis gëstu ci taarix defe naa mosul am ci borom saam rek la ma sa amee mooy ku la féete suuf ci zaahir ci ay at woote nga bàyyi la nga jàpp wuy si ko topp ko te bokk ak moom lépp ba noppi di ko wax nit ñi nag ndax defe naa am na bés ci mbakke gii boobu sëñ baa ngi Touba mooy bi muy nekk ci réeram yooyu maam borom saam julli na gee ba noppi ci buntu jàkka ji waxtaan ak mag ñi ne leen dama wax ci seen waajooju dara moom day wootewut ba nit ñi ñëw mu door a wuti lu mu leen jox waaye daa am lu mu leen jox ba noppi door leen a woo teel a dégg sëñ bi it mbakke gi am na peste bu fi ma sa am bu metti bu doy waar borom saam yónnee ci sëñ bi ne ko nee ko na ñaan sëñ bi ne ko nañ sàkk sara te wàcc jàng alxuraan mu ne ko loolu ñëpp a ko man bu ma ko dee wax yow muy jubook yàlla te boo ko waxee mu def yow laay wax ngir nga wax yàlla sa borom mu def kon teel naa dégg sëriñ bi ci xam maanaa yooyu ak li man ci moom muy koo xam ne it euh, sëriñ Touba da koo joxoon cër bu rëy rëy boo xam ne wane na ci misaal ci melo yu ne ci jëfam ak doxinam ak tedd nga ci fonk ko waaye di ko fonklu it di ko fonklu nga xam ne bu masaa yónnee ci moom di ko woolu day wax ndaw li ndax xam nga niñ koy wooyee danga naan ko bu féexee nee ko yitte woo naa ko te bu ko jiitu nag di dox ba di ko fitna mu yàkkamti bu masaa ñëw lu mu fekk sëñ bi toog ci sëñ bi day jël loola sànni ko ko ne ko bismillah moom it mu delloo ko war may nungul li ko yàlla defal ba du ca nungoo toog loola kon wane na ne nungu na am ci moom ay cër am na bis ci njaareem sëñ bay wax ci moom ci borom Cham di waxal boppam ci ay jagleem ay mayam cëram yu rëy yim am fa la fekk soxna aw buso waaye juru Cheikh Amadou Fadal keroog soxna aw buso dafa feeñal mbégteem daan na ko yow de ni ma déggee daa mel ni yaay yàlla borom saama yonent bi sëñ Tuubaa na ko ah, xaw ma mooy yonent ba mu dédd waaye waaye balaa kenn jëriñu ëllëg daa jaari ci borom Cheikh xaw ma nag mooy yonent ba mu dédd kon loolu wane na fu ko sëñ Tuubaa teg ci meloon moom it moo am tawféex ju toll ni bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci sëñ Tuubaa di sàkku gis borom saam loolu defe naa ñu ko am bëriwul waaye keroog bi loolu amee borom saam dana ko man de sant naa yàlla ndax yonent bi ku ko gis ci gént sax doy na mu ne ko yow da desee xam mboolem turandoom yi yaa ko ci gën a kon mboolem turandoo yi ñu tuddee Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi moo ne sëñ Tuubaa maam borom sàmm moo kon loolu cërëm bu rëy boobu la am sëñ dem mu baax ma daana wax ne sëñ Tuubaa kenn xamul lim doon waaye borom sàmm mat na borom jamono daana ngemeñ njaboot ak jaamu yàlla gisuma ci ku mel moom nga ne kooku mandarga moom lañ koy misaal boo demee ci waxi Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Xaadimu Rasul sëñ Baara bi mu nuy bi muy marsiyaal Cheikh maam borom sàmm te sëñ Tuubaa joxe woon ci ndigal gis nga ba mu koy misaal da koo tagg-taggin wu neex waaye ci biir dafa xam ne yabiitu yu salli ma yusbihu saaima wa ma juuduhu illa ka amtaari waabili mu ne guddi gi bu nit ñi nelaw moom day taxaw di naa naafile bëccëg yi borom saam da koy woor waaye ak tabam nag ak nu ngoo jaxe alalam day mel ni waamee rek buy sotteeku na muy dotti koo nee na noon la borom saam di mel ci ak ak tab kon melala yoo xam ne ci jëf ak taxawaay boo xam ne lu mat a delloo si la xam loolu bu baax a baax nañu xam loolu danaa ko daanaa ko wax gaañi na leen mënunoo fonk ak kàdd fonk ngeer fonk rat te doon fonk sëñ bi ak njabootam tey bu ne woon fegg wii sëñ Touba ko laaloon kun ko suulaale ñu ne texe na kàdd gi sëñ Touba ci wéeru woon ñu ngarañ ko kun ko suulaale ñu ne texe na dereti sëñ Touba moo gën a foor loolu nañ koy waggare ku sëñ bi na bokk ak yow doon taalibe bi sëñ bi sax yombul ndax li yàlla tànn ca la tànn ixtaara maxtaarahu l muxtaaru naamalahu faxtaarahu wa muxtaaru muxtaaru kon borom sàmm mi bokkal lépp nañ delloo si li ñuy xalaat ci xool li mu am ak kim doon ndax kat bari na lefu yàlla woo xam ne ku ca jaar da nga doon ab yeefus ci borom sax saakab nu ban la xabibula abidahu mox yi layaali bi awraadi sandiyaati kon ñi doon taxaw xam nañ ko te keroog bi mu ñëwee ci sëñ Tuubaa di ko jox boppam sëñ bi dana ko pays suñu borom yëpp fu ma dem fekk naa fa sa jëf amul benn pays bi yàlla bu ma dem fekk moo fa sa jëf kon loolu fees na dell ak ngëneel yàlla kon noo ngi sant yàlla di am tawféex ju rëy nag di ci sant suñu borom boole gém nu boole ak ak borom Saam yàlla na yàlla yàggal fi njaboot gi te wéral leen noo ngi leen di balu àq bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wa rahmatullahi wa barakaatu ni ñu ko waxee donc euh, beral di nuyoo dara ki nga xam ne fii bu ñuy liggéey sëriñ ba moom lañuy ñuy boole sës ak moom rek di sëriñ Cheikh Ouna Mbacké mi fi toog ñu koy ko ziar kon di jaarale ci seen loxo tam ndokkeel ci bés bu am solo bi di bésu euh, mag Euh, tey ñëw nañ fi gis ngeen ne maa jiite délégation bi dinaa ko lim euh, def naa wax nañ si sax ak euh, Serigne Mamour Ndao am na ki nga xam ne président la république moom la yebal waaye tey conseil des ministres bi dafa xaw gudd ba nga xam ne bi ñu jox ko ak sëñ bi mu ne comme taalibe yi ak donc mbooloo bi yëpp ñu ngi fi incha allah bu président yebbal bu yëgsee ñu ko defee ak bu kon dama ko woon ah, yàlla baaxee ñu nag ñu fekk fii ñoo xam ne ñu nag ñoom ñoo fi teewal état ñun nii dañu ànd ak ñoom ñeneen nii dañu fi fekkante waaye état moom benn bopp la ñii nag ñuy cër ñii di bët ñii di loxo ñii di tànk ah, ci ñooñu mun nañ ci ràññee ki di euh, Baye Mor Ndiaye di conseiller économique social et environnement mu ngi fi ñu ràññee itam ba xam ne yàlla moom la teg ci commune bi Serigne Abdou Mbacké Ndao muy maire commune Mbacké mu ngi ni toog tam yàlla baaxee ñu nekk fi tey ak directeur général SOGIP SA di directeur général Galawa mu tam dama ko ñëw bokk ci délégation bi nga xam ne mën nañ ci ràññee ay chef de gannaaw bu ñu cité Moussa Thiam di adjoint préfet El Hadj Diobane inspecteur bu jógee ci njàngale bi Amady Ba moom moo yor xale yi Thiendella Fall bu développement communautaire Ibrahima Gueye bu service du jeune Badara Badiane développement rural agriculture ak yooyu euh, capitaine Gorgui Gueye eaux et forêts Souleymane Cissé bu ASP Malick Sadara Sall donc élevage Amady Ba police Adem Ndiaye donc action euh, sociale El Hadj Ndiaye bu AMO euh, ak commissaire Younouss Diedhiou boo xam ne donc moom euh, moo jiite ci commissariat urbain donc euh, donc euh, suñu Abdou Mbacké waaw donc ah, donc délégation bi comme ni ko waxee dañu ñëw fii ci d'abord bu ci def naa bopp solo mooy tànku jullit ci tànkam boo xam ne mooy tàngoru maanaam état ñu jëmbal fii état bu Sénégal rawatina président de la République ak koo xam ne moom la ñu gën diine di ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye donc gannaaw loolu man nag buñ fi ñëw am na beneen boo xam ne dama koy wax fii toujours mu ñëwee mooy tànku dëkk ndax ñun ah, maa ngi fàtte sax euh, waa kër Cheikh Omar Ndiaye ñu gis si ñoom aussi ñu ngi leen di ziar donc ñëwee rek donc bàyyi xel ci ñun ak waa Mbacke ci commune bi ñun ñu dëkk ñu suñu dëkkandoo rawatina waa Mbacke may wax toujours waa kër Serigne Mamor ñoom toujours ñoom ñoo leen di leen baal àq ndax ñoom ñu daal administration muy préfecture ak service yëpp rawat ak tam mais ci la ñu mooy bés bu nekk ñu doon leen donc ak suñuy porte ak lu nekk donc ngeen nekk suñu dëkkandoo te lu ñu wax ci dëkkandoo ci dundee vraiment ñu am solo donc dañu ñëw firndale projet mel noonu waaye tam dañu ñëw ndax fii bërëb ñaan kay donc du sàkku ñaan fii euh, ci suñu turu waaye surtout ci turu réew mi rawatina ñu ngi dugg ci nawet tey maa ngi dégg taw la boobu quatre mois donc euh, jullit amul du ñaan donc ñu ñëw fii. ko tàggal di ñaan dugg ci nawet bi ci bismillah donc mu doon nawet bu set tàggal aywa salaam mu nekk nawet bu barkeel mu am ndox ndox bu rëy waaye ni ñu ko waxee tàggal salaam euh, di leen sant di ziar daal di fëttali la nuyoo ak euh, ziar jaarale ko donc ci seen loxo. asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. mi ngi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 te timis si dugg si te amuñu sañ-sañ ñu nodd ñuy jàll ci kon dañuy tënk rek ci turu sëriñ Abdoulahi Mbacké yàllaay buur yàlla na saa borom yàggal ko fi lool te may ko wér moom ak mbokkam mi Cheikh Mouhamadou taxawaayu Sëriñ Tuubaa ñu ñaan ci yàlla yàlla boole leen fi bàyyi ba ñoom ñëpp ñu àggale seeni naal ndax xam nañ ne kenn ku nekk ci ñoom li mu naan ndamul sëriñ bi la ndamul lislaam la loolu rek kay seen bëgg-bëgg te moom rek mooy seen jubluwaay kon yàlla leen fi yàgg yàlla yàggal ci daraja yonent bi ñoom nag kilifa yi diine yi ñu fi bokkal nekk yépp ndax kenn ku nekk ci ñoom xam nañ ne loolu muy bëgg-bëggam sëriñ bi ne mi ngi sant mbokk yi yépp bi mu jiitale cantam ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ak mbokk yi mbokkal bokkal sëriñ ak mbokk yi mu bokkal maam Maaram ak ñi mu bokkal maam Balay Sëñ ñépp sëriñ bi nee na mënta lim ñëpp waaye mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax kenn ku nekk taxaw nga fi yàble nga ñu taxawal la fi kon mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm njabootu boppam gi nga xam ne njabootu borom saam kenn ku nekk ci ñoom ki ko fi teewal teew si na fi mbaa mu yebal fi ñu ko fi teewal te sax ñi ko fi teewal ñi ci dañ fee teew si kon sëriñ bee ngi sant ñëpp ndax xam nañ ne dox bi muy dox ak fii mu jëm ñi mu àndal ñi ngi koy topp ci ni nga xamante ne bi doon la ànd ñoom di liggéeyal ki nga xam ne moom lañ bokk bokk bëgg la war a liggéeyal bu sëriñ borom kon sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di sant ñu mu ko bokkal ñëpp waaye nag di sant taalibe yi ndax lu fi taxaw wala mu sax fi rek taalibe yi la ndax fii moom benn sëriñ boo xam ne am nga lenn looy def lu di sant taalibe yi ñu lay liggéeyal di dem ci say tool ak di fab alal di la ko jox comme ci doon ku nekk soo amee laneen it loola moom yaa ngi ci boole kon loolu moom nañ ko fonk te jàpp ko moom sëriñ bi nee na mi ngi sant taalibe bu baax ndax kat xam na xel loo fi gis rek taalibe fi def keneen ku fi di def bëgg na ak taalibe ba mu def ko kon taalibe yi ñoo def lépp kon nañ leen sant bu baax te ni ma koy waxee waxtu wu ne leen te jàpp leen te nawloo leen te ànd ak ñoom ngir sëriñ Touba jox leen cër yi ñu moom sëriñ bi nee na kat nit taalibe yi taxawee temm ci ku ko fonk ñu fonk la moom it noonu la taxawee ci ku fonk taalibe bi ñu fonk la amul lenn lu ñoom ndax Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul dafa waxoon ne sama mbokk yi amuñu lu dul man taalibe yi awma lu ñoom kon nag ginnaaw sëriñ bi amutoon lu dul taalibe yi nañ fonk taalibe yi te jàpp leen sëñ bi nee na nañu góor góorlu bu baax a baax te fonk taalibe bañ leen a fàtte ànd ak ñoom te yàlla rek a tax di nuyu ñii nga xam ne ñoo fi nekkal nguur gi tàmbale ko ci préfet mii nga xam ne fu ñu fu ñu jóge ci ab liggéey mi ngi ànd ak ñun buñ demee ba ñun liggéey ñu sax lu mu xam ne njariñul kër gi moom dana taxaw def ko ñun xam nañ ne am na taxawaay boobu ci kër gi amit na bëgg-bëgg boobu ci kër gi di sant Abdou Mbacke Ndaw mii nga xam ne ab jarbaatam la te nekk ak moom ci dëkk bi tey liggéeyal dëkk bi ñuy ñaan yàlla sa borom defal ko tawféex di santit bi Gallo Ba directeur ndax moom it ku baax la doomam la te liggéey boo xam ne sëriñ bee ngi ci nekk ànd na ci ak moom ba ci ni ko gone yi doon waxee léegi lii nga xam ne moom ñu wut tiim keroog bi ma ko jotee téléphone képp ci turu sëriñ bi ndax ma ni jarut ngay ñëw jarut ngay yónnee si bu soobee yàlla liñ fi war a def danañ koy def te defe ne ko noonu kon moom ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal. di leen yóbbante ci président di ko wax ne na ñu geestuwaatal suñu mbokk yi nga xam ne amuñu lu dul ñoom te ñu nekk ci ginnaawam muy Abdou Mbacké Ndaw mi ak Gallo mi nañ leen jàppale ndax ñuy kët ku leen jàpp jàppale nga dëkk bi kon sëriñ baa ngi leen dénkaat leen dénk madame mbay ak euh, Abdou Karim Fall mboolem ñoom ñoo ñi nga xamante ne bii dañoo bokk ci kër gi te di ko jàppale na ñëpp jàpp ci ñoom te xam ne ñoom ñoo ñii kët ku leen jàppale jàppale nga sëriñ bi leneen li ci des mooy nawet baa ngi nii di dugg si sëriñ bi nee na man nañu ne ñi ngi naan taw na fee taw na fee te dégg bu ñu fenn foo xam ne fii ndax ñi ñuy dégg ñuy publis ay ay ay jiwu sax jiw ya ñuy ya ñuy tudd ay juróom kilo la ak fukki kilo loolu nag moom jëriñu kenn dara kon jiw yi nga xam ne dañ ko doon jox nit ñuy liggéey nañu leen ko jox laneen la ci des nag mooy ñun buñ ñu ko joxut nañ dem bay gerte dugub ak ñebbe ak laneen ndax lu ci doon lu nekk am na njariñ ndax kat nañu leer ne fii ñu nekk moom ci réew mii ñu nekk lenn lu nekk nit mën na ko fee def ba jariñu ci bu fekkee ne gerte rekk du ab liggéey su amul gerte nañ bàyyi laneen te liggéey waaye daal sant nañ leen ñu nit ñi di leen jox aw jiw di leen jox ab engrais bu ñu leen ko joxul ñu bàyyiwaat lépp ci loxo yàlla ndax maa ngi dëkk bi yëpp xoddu maa ngi dallaahi baas li ci doo loxoy moom mën naa jeex waaye li ci loxo yàlla du jeex kon nañu góorgóorluwaat ci nit ñi te yërëm leen ndax bu ñu leen fabee teg ci kanam fal leen dañ leen a fal ngir ñu taxaw ci kanam doomu aadama yi taxaw ci soxla yi doomu aadama yi waaye nag duma nit ñeeg tëj nit ñi taxut ñu fal kenn nañu dimbale nit ñi te yërëm leen te jàppale leen te yàlla tax lii rek mooy li am solo sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp taalibe yi yëpp sëriñ bi nee na ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal sëriñ bi nee na mi ngi sant doomam xaramin Mbàkke ndax moom it taxaw na ci bis bi taxawaay boo xamante bi kenn ku nekk xam na ko moom ku ko wax ak ku ko xam nga ko ndax kenn ku nekk ñun xam na lim ci lim ci liggéey ak lim ci jàpp ci bis bi kon mi ngi koy sant ni mu sante njaboot yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi kenn ku di màggal ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan sa borom dafa ñu tawféex di ñaan yàlla may ñu jàmm ak sutura may ñu nawetu barke ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa kër soxna Fatikan Bousso ñi nga xam ne ñëw nañ fi ah, sëriñ Cheikh Bousso seen naa ko léegi ci kaw ñoom it ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu leen baax di leen gërëm waaw ah, sëñ Alaaji Fàllu Bousso ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen nuyu te xam ne ñoom it jàpp nañu bis bi Ah. maître Madické ngi itam yónni na fi ay ndaw yoo xam ne dañoo yéex a ñëw léegi lañ fi ñëw Serigne Chouaib bi Mbàkke jiite ko ñoom it dañoo wax ne incha allah moom ci boppam mi ngi won ci yoon wi ñëw waaye nag dafa yaakaar fekke fi ta lii ñu nga xam ne ñu ngi koy def muy cérémonie bi hmm. mi ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla sa borom defal ñu jàmm sëriñ bee ngi sant waa daayira bi nga xam ne ñoo taxawal bis bii di ko ci liggéeyal liggéeyal bi ñu koy liggéeyal te sëriñ Abibou Mbàkke jiite ko mi ngi sant ñëpp